asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ginnaaw bi sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëwaat ak yéen ci seen alquraanul karim ci tafsir ci jàngat nga xamante ni nii yàlla subhaanahu wa taala moo ñu ko baaxee mu nekk téere boo xamante ne nii leer la nekk téere boo xamante ne nii yërmande la nekk téere boo xamante ne nii barke la waaye nekk téere boo xamante ni dafay jubalaate benn aaya rek laay euh, génne ci alquran pour wax leen alquranul karim njariñ lu mu am joxe yàgg dañ koo joxe ci ay misaal boo xoolee suñu jëmm yii nga xamante ni nii euh, euh, ruux moom moo koy dundal tey jii doomu aadama mu ngi dox rek mooy ruuxam mu ngi ci moom bu ruux gi dañee rek mooy faatu na waaye tamit dund gi si jëmmi boppam alquran moo koy dundal xam nga doomu adama mu ngi lekk mu ngi naan yaa ngi dégg bu bëggee nalaw nalaw bu bëggee yeewu daal di yeewu ju def soxlaam d' accord sa dund gi nag pour mu am dund gu yàlla gërëm pour mu am dund goo xamante ne ni yonent bi saa salaam kontaan na ci mooy da ngay jëlaat alquranul karim gii defaat ko mu nekk ak ruux muy dundal li nga xamante ne ni moom moo sa dund wa kadhalika awxayna ilayka ruuxam min amrina kon alquran ruux la ruux la lan ruuxu dund gi la képp ku bëgg am dund gu neex képp ku bëgg am dund gu am stabilité il faut nga dund alquranu karim wallahi alazim topp bànneexu ba kenn rek moom moo fi nekk ak topp àdduna ak topp mbumbaay yi waaye képp koo xamante ne nii dafa pare pour ko ci ndigali yàlla lu ko yàlla digal mu def lu mu ko tere mu bàyyi nekk koo xamante ne nii ku jub la terew koo dund terew koo lekk tere koo naan kooku da ngay gis ni dafay dund dund gu neex dafay dund dund gu laab dafay dund dund gu teey mbokk yi moo tax yàlla subhanahu wa taala nag daal ñu jox alquran jël yonent bi sa salaam daal di ko koy dénk moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daal di jàngale alquran ca na mu ware yokku ci wàññiw ci mu jaral ko mu bàyyi ab dëkkam mbokk yi alquran ji moo taxaw ne yonent bi génn màkkatal mukarram ndax dañ ko waxoon ne ko doo ko fi eggalee mu jaral ko mu bàyyi màkka dem war a def fa 10 ans alquran ji daal di mat mu daal di ñëwaat makkatal mukaram daa di am ndam mbokk yi téere bii nag di alquran ajjuma jële weesu waxoon nañ leen gaa yi nga xamante ne nii buñ leen di wax ni lan mooy alquran dañuy wax ne ay léeb la ak léppoon loolu yàlla moo ñu ko nekkal fii ci alquran yàlla moo ñu wax ci alquran ni ñu am na nit ñoo xamante ne nii daanaka boo xoolee gëmuñu alquran soo leen waxee ci alxuraan ñu la jàppe ko ay léeb ak i léppoon léegi nag contraire bi am na gaa yoo xamante ne nii ndeysaan buñ leen waxee lan la leen yàlla jox dañu naan xéewali neen wa id wa qiila lilladina taqaw maada anzala rabbukum qaalu xayra lilladina axsanu fi hadihi dunya xasana wala daaru alaxirati xayr wala nicma daaru lmuttaqin yàlla subhanahu wa taala nee na gaa yi gëm yàlla dëgg gaa yi nangoo topp yàlla bu ñu leen posé question laaj leen neen wa yeen alquran ji lan mo ci nek dañu nan khayran neen mom mo ci nek rahmatan wa barakatan wa nuran wa hidayatan allahu akbar mbokki batu khair, dafa nek bat bo xamante ne dafa ëmb lepp lu bax motax biñ bi ñu leen waxee lan la leen yalla jox qalu xayra lolu nak ku dundul alquran xam ba bi ba légui ba 2022 am na ñoo xamante ne nii alquran jaral na leen ñu faatu xam nga lan moo ko waral parce que ñoom dañu koo xam dañoo ñam li nekk ci biir xam ne xéewali neen moom moo ci nekk bànneex moom moo ci nekk par exemple nga gis ku nekk ci tool bi ku nekk ci terrain bi di danti danti ngir alquranul karim ndax dafa xam xéewal yi ci nekk moo tax yàlla subhaanahu wa taala nee na gaa yi dund alquran gaa yi dégg alquran gaa yi koy jàng di ko jàngale mu jaral leen lu ne bu ñu leen laajee waaye yéen téere bii lan moo ci nekk xaalu xayra dañu naan xéewali neen moom moo ci nekk yàlla subhaanahu wa taala nee na gaa yooyu nag fii ci àdduna dañ leen ji teraanga leen ko ji dinañ leen ko defal képp kuy dundal alquran te dëggu ci waxuma nag ñiy business ci alquran ñi nga xamante ne dañu defar seen kër yi ak seen àdduna ngir alquranu karim te boobu nag moo ci ëpp bare na kuy taxaw di ŋawti ŋawti naan alquran alquran fekk ni wallahi alazim gëmu ci dara bëggul ludul am ak kër mbaa amu téré mba défar mbiri aduna ñooñu nak man nañu am aduna de waye wallahi alazim duñ ci am alaxira waaw nuraqiu dunyaana bi tamziqi dinina fala dinuna yaqqa fala ma nu way kat am na ci nit ñi ño xamanteni ni fo leen seen ñu ngi bokk ay kamil mbolo muñ dem nan yalla neena di jang ay aya pare yenn sa nga gis leen sax ñu joy fekk ni wallahi gëmuñu ci dara bëgguñu lu dul defar seen àdduna waaye tamit nee na li ko naqari nag ci gaa gaa yooyu ñooñu ñooy tardeel diine ji parce que du ñu liggéeyal alquran waaye tamit kasaalika du ñu liggéeyal diine ji te boobu moytu la ñu bëgg dëgg ci àdduna duñ ko am mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala nee na wala daarul axirati xayr wala nicma daarul muttaqin yàlla nee na li ma dencal ñi liggéeyal alquran moo ëpp fuuf li ma leen may fii ci àdduna du gis nañ fii ci àdduna ñi ñi doon dundal alquran ñi liggéeyal alquran li leen yàlla may fii ci àdduna yàlla nee na loolu lu ndaw la lama leen dencal moom moo gën fuuf gis nga fii nii ci aay bi li mu wax ni wala daarul axirati xayr walla daarul axirati axyar la axyar moo gën fuuf mais indiw ñu alif gi yaa ngi dégg mais afala tafdil la wala daarul axirati xayrun wala nicma daarul muttaqin yàlla nee na ak a neex ak a baax mujjante gu rafet gi yaa ngi dégg xam ngeen bu ngeen xoolee laay yu mujj woon nga xamante ne ni yàlla subhanahu wa taala mu ngi ci doon xas yéefar yi ak képp kuy wedde alquran dafa waxoon fala bi sa maswal mutakabbirin waaye fii mu daan di wax ni wala neema daarul muttaqin baatu bi sa neema moom moo jàkkaarloo ak moom moo taxoon wax naa leen ko ci émission bële weesu ma waxoon ni leen am na lu ñu tuddee muqaabala mooy yàlla comme que wax na gaa yu bon yi day indi gaay yu baax yi loolu bari na ci alquran yàlla fu mu tudd guddi tudd bëccëg fu mu tudde noor tudd nawet yaa ngi dégg fu mu tudde asamaan tudd suuf a kaza mu ngi noonu su ko defee alquranul karim nag dafa am lu ñu ciy tudde muqaabala yàlla subhanahu wa taala bu ngeen xoolee ci aaya yee mujj ma nga doon wax naan fala bi sa mu takk maswal mutakabbirin ñaaw na bon na yées na mujjub gaa yi waaye nag fii nga xamante ne nag gaa yi ñoom ñooy liggéeyal alquranul karim yàlla subhanahu wa taala daal di wax ni wala ni'ma daarul muttaqin gaa yi fii ci àdduna doon liggéeyal yàlla doon liggéeyal alquran lan la leen yàlla di faye jannaatu adnin yadxuluunaha tajri min taxtiha al anhaar lahum fiha maa yashaa'uun kadalika yajzi llahu lmuttaqin allahu akbar mbokk yi yàlla subhanahu wa taala nee na gaa yi doon dundal alquran doon ko doxe doon ko waxe bu ñu leen laajee li ngeen di jàng nii lan moo ci nekk ñu daan ni la yiwi nee ci nekk yàlla nee bu ñu ci nekkee ba faatu bu yowmal qiyaamee dinaa leen fay àjjana jannaatu adnin al adn mooy foo xamante ne da faa sax buñ nee ah, adana fulaanun bi baladin ma mooy diw dafa tukki benn dëkk daa dafay toog bañ du ñibbeeti ñu daan ne adana moom la yàlla jël tudde ko al ajjana jannaatu adnin àjjana la joo xamante ne dañ fay sax parce que fii dëkkuñu fi àdduna dëkkuñu fi avant ñuy ñëw ci àdduna am na fu ñu nekkoon yaa ngi dégg ñu jékki-jékki ñëw ci àdduna bu ñu jógee ci àdduna dem barsax mooy dund gi ñu dund ci biir bàmmeel bu ñu fa génnee dem yowmal qiyaam ñii dem safara dem safara yàlla na ci yàlla musal ñii dugg àjjana dugg àjjana yàlla subhaanahu wa taala nag nee na àjjana nag mooy teer ba fa mujj ku fa xas dugg jeex na dootoo fa génnati dootul jeexati moo tax mu tëdd ko jannaatu addinin yadxuluunaha tajri min taxtiha al anhaar yàlla subhaanahu wa nee na foofa dex ya dañuy daw ak payoor yu mag ak yu rëy moom moo am biir àjjana lahum fiha ma yashaa'uun yàlla nee na gaa yi doon dundal alquran doon ko doxe doon ko waxe bu yawmal qiyaamee biir àjjana lu ñu tipp ma dagg lu ñu bëgg rek ñu jox leen lahum fiha ma yashaa'uun yàlla nee na loo bëgg rek mooy am xam nga fii ci àdduna nga fi nekk bëgg dara doo jot waaye àjjana loolu amu fa àjjana loo bëgg day ñëw lahum fiha ma yashaa'uun kadalika yajzi llahu almuttaqin te yàlla nee na kat naka noonu laay faye képp ku ma ragal képp ku ragal yàlla rek insha allahu rabbi bu yowmal qiyaama yàlla dina la faye àjjana yàlla nag daal di jeexale aaya yi nag gaa yi gëm yàlla gaa yi ragal yàlla gaa yi góorgóorlu topp yàlla bu ñu juumee bu ñu defee bàkkaar tuub delluwaat ci yàlla jéggulu yàlla xam ne kat ah dañoo juum gaa yi nga xamante ni ndeysaan ñu ngi dundal alquranul karim nekk ci nekk ci nekk ci ba dee dikkal leen yàlla nee na ñooñu instant bi ñuy dee dañuy nekk ñu laab nekk ñoo xamante ni du ñu tiit dañuy dal waaw alladina tatawaffahumul malaikatu tayyibin allahu akbar tayyibin yaquluuna salaamun alaykum udxulul jannata bi ma kuntum taamaluun allahu akbar mbokk yi xam ngeen ajjuma jële weesu expliqué naa leen gaa yi xeex alxuraan bu ñuy dee malaaka yi bu ñu leen di faat seen ruux yi bu ñu koy dindi dañ koy bif dindi gu metti mbokk yi wallahi wax nañ ni dee metti gu mu metti dafa mel ni tey jii nga jëloon ay onze xam ngeen onze mooy nappkat yi affaire yooyu ñuy jël di ko sànni biir géej pour jàpp jën puso bu ñu bu ñu lunkal buñ ci jëloon lu bari jël ko dugal ko sa biir bi daal di koy bif génne ko noonu muy mettee nu ko raw sukuraat moo ko gën a metti gaa yi xeex al alquran nag képp ku nangowul topp njàngalem yàlla bu ñuy faatu noonu la malaaka yi di dindee seen ruux mais contraire bi képp ku baax képp ku yiw buy faatu yàlla subhanahu wa taala nee na malaaka yi bu ñu leen di faat dañuy dindi seen ruux ndànk ba duñ ko yëg tayibiin instant bi ñu koy dindi ñoom dañuy nekk ñu laab nekk ñu yiw nekk ñoom te dañuy dal dañuy am ak ak dal lañuy am du tiit du ñu ragal dara ba pare malaaka yi naan leen yaquluuna salaamun aleykum waaw yàlla jàmm wàcc ci yéen bu yowmal qiyaamee lan la leen di waxaat udxulul jannata ubbi lañ leen bunti ajjana kaa leen dugg lan moo leen dugal ajjana nag bi ma kuntum li ngeen jëf mbokk yi bu nax suñu bopp ku liggéeyul doo am ajjana ku liggéeyul doo am ajjana de li yi naan ah ajjana say jëf dugalu la fa déedéet jëf yi ngay jëf moo lay may nga dugg ajjana bu dee lu baax la nga dem àjjana bu dee lu bon la wal ayaasu billah nga dem safara kon mbokk yi aaya yii mooy aaya yi jàkkaarloog émission bële weesu ñële dañoo noonoo alquran ñii dañoo jël alquran bëgg ko doxe ko waxe ko yàlla fay leen àjjana te loolooy li am ba yowmal qiyam képp kuy dundal alquran di ko doxe di ko waxee incha allahu rabbi fii ci àdduna yàlla dina la fi defal teranga booy faatu faatu gu nooy faatu gu lewet ngay faatu te bu yowmal qiyaamee bu gaa yi demee dañ lay ubbil bunt àjjana nga daal di dugg daal di fay sax dootoo fa génnati yàlla nañu yàlla boole ci waa kër alquran karim yàlla nañu yàlla boole ci ñoñi alquran yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam te ne bu yemal xiyaam pénc ma la muy tàng-tàng alquran dafay ñëw daal leen di sempi daal leen di dugal fi nga xamante moom moo di àjjana yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala dafa digg ak topp jéggal ñu suñu bàkkaar jéggal ñu suñu rëcc rëcc lépp lu fi jub nañ ko sante yàlla lu fi dënguñu jéggal ñu ko di jaajëfal ñi ñu àndaloon ci liggéey bi waaye tamit kazalika di jaajëfal la maison du Coran nga xamante ni nii liggéeyam leen rek la moom moo di liggéeyal alquranu karim ak jàng ko ak jàngale ko ci àdduna bi yépp ba ñëpp jot ci yàlla na yàlla subhanahu wa taala def la ñu dégg ak topp wa jazakumullahu xayran wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh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 bois rouge conçu minutieusement finition bala la menuiserie finition vous ay moquette yu yo Iran Iran yi ko Égypte yi Turquie yu am grande finesse ak ay beauté yo xamni MashaAllah yu taru am ay housse pour fauteuil am nañu ay matelas am ay tableau décoratif yo xamni machallah am tamit ay jardin yo xamni gazon la wala synthétique am ay moquette pour ay moquette pour couloir ay matelas ak ay oreiller orthopédique